mu mel na kilifa yi ci wàllu xàmme ak ci wàllu jàngale li leen ci yàlla may ku ko xeeb rekk def musiba sax léeg-léeg nga gis ci lu la jaaxal Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu tubaab yi dañu ko mës indi fii ci Baye ndar ba Gàmbi nit desu fi di kilifa te invité wuñu la Sëriñ Babacar Si neena na dañu ko tappal médaille nee melo barab ba ak la daje ci kilifa gu weex ak bu ñuul nee kenn xamul nañu toll nee bi ñoo tëgg seen musique yile ak li ñoo tudde hymne national nee sama xol baa ngi sedd maa ngi bëgg nee na ba ñu ko tappalee ba noppi nag ba nuy ñibbi ma bëgg a natt xolam fu mbigëreem toll ma ko góor gi daal bés bi rëy na de te nu it bëgg nanu mu ni man day sant ci ndax ci suba lim bima don bima faral di ci suratu yasin dama ko jotul def waaye comme jataay bi yàgg na may na ma ma jàng ko fi ba tabarkalla mu sell nee na ma nit te sax waaw Sëriñ Alioune nii moom li ko gënoon yéem mooy fonk bi tubaab yi fonkoon Maodo en même temps tubaab ni mu yeewoo ni mu bare lu muy toppatoo surtout digganteem ak sëriñ Maodo def bëytam boobu di ñaan mucc min charril kuffaar di ñaan mucc min charri nasara di ñaan mucc min charri salatini ne jàkka joo dem muy riir tubaab yi xam lu bayti bi di firi te merewuñ ci Maodo mu ni kon ànd ak borom jikko rekk moo am solo waaw ndax loolu wone ni Maodo lu mu def ci jikko la ko teg ndax loolu kenn du nekk buur ñaan ni yal na ma yàlla musal ci buur bi yal na ma yàlla musal ci ki ma colonisé yal na ma yàlla musal ci yéeféer bi ma nekkal jàkk yépp di ko jàng muy riir ka ngay ñaan di muslu ci moom waxuma ni muñ na ko waaye lu mu xam ni sa bëgg-bëgg la def na ko booba tubaab yi dañuy yëg ni ñett yi mu wax yépp ku ci ne danger nga pour nit ñi xam nañ ko te boroom jikkoo ko wax ah, borom jikko ko waaye ñoom itam pour fay boroom jikko jikkoom donte amuñu jikkoo jéem nañu ko waaw jéem nañu ko moo tax nga xam ni mag ñi ñoonu gën a xam luy méthode seeni psychologie moo gën a sell sunu bos boo ko xasee xam doo faral di werante ak ñoom waaw moo xam ña ca am politique la wala ña ca am diine nag ku ci ne bu la yàlla maye may na la